assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi sant sering bi bu baax di len xamal ne fagul nanu sunu njariñi tay ak sunu njëriñi ëllëg lepp faggu na ko noo sant bu baax yaatu na liñ ci mën a jiital mooy jataay bii rek fag faggu gi mu nu faggul ñaari sëriñ faadilu kii di imaamu taraawix kii di imaamu eh, salaatil iidayni di ay gone yu ndaw ñu waajal leen waajub lislaam bu mat sëkk dëppale leen dëppal lislaam muy alxuraan noo ngi gën a sant sëriñ bi bu baax ndax loolu lépp pàggutee fa moom ne ñeewunu madinatul munawwara ci seen ilimaan ñeewunu it makkatal mukarrama ci seen ilimaan loolu lépp nag fàggu sëriñ bi rekk kon nag noo ngi koy sant bu baax moom Sëriñ Tuubaa bu loolu wee ñu farlu ñu farlu ci dool ñu ñu farlu ci jooyal lislaam loolu moo di taxawaayu lislaam ak doxiinam ak ni mu gaawee am am téq fanweeri at yu tegal rek mbooloo mi mel ni lépp a soppiku ti ti li fi ngeen ji mi def bàyyi woon muy liggéey bu rëy bii di lislaam mat sëkk ko waxee woon rek ko waxee woon rek ne alyawma akmaltu lakum diinakum ñu dox tuuti at yu néew ñu dox tuuti at yu néew lépp xaw a dellu ca na meloon ñooy seti yonent bi ñu ah ñu rey seti yonent bi ñuy rey seti yonent bi ñu jàpp ay setam yu jigéen ñu jàpp ay setam yu jigéen ni ki jàppum njaam ni ki jàppum njaam defe loolu defe naa benn yàqu-yàqu mënu ko ëpp lislaam di dem lislaam di dem ci noonu rek nag ci noonu yi rek nag digëndi lëj rek digëndi lëj rek lolu mo waral lolu mo waral jambar l'islam yi jambar l'islam yi sahabatu rasul gannaaw sahabatu rasul ñu jog ñu jog fasiyene taxaw taxaw yonent bi fasiyene taxaw taxaw ay yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasiyene fasiyene yasal l'islam fasiyene yasal l'islam ak dundal ko ak dundal ko ci tumurankem gogi jàmbaari lislaam yooyu nag. jàmbaari lislaam yooyu. ku xam na ne ku ne xam na ne ci la sëriñ bi bokk. gis nañ ni mu jógee. gis nañ ni mu jóge dafa mel ni da dafa mel ni da koo àndaale. dunde ko. dunde ko. lépp di jub ci lislaam. lépp di jub ci lislaam. pasteefu taxaw delloo ko fa mu newoon. am pasteefu taxaw delloo ko fa mu newoon moom xaadimu rasul. ba ñi jëkk a ànd ak moom. ba ñi jëkk a ànd ak xaw na leen def ni saxaabatu rasul. xaw na leen def ni saxaabatu rasul. mën na leen caa yéegalit ca ñoom. mën na si ne leen a yéegalit ca ñoom. kon. kon. fii ñu toll nii. war na noo tal. war na noo taxaw war na noo tal leneen lu jógaat ci lislaam lu jógaat ci lislaam jàmbaari lislaam yooyu jàmbaari lislaam yooyu seen taxawaay yooyu seen taxawaay yooyu seen liggéey yu rëy yooyu seen liggéey yu rëy yooyu te sëriñ bokk ci ñoom te sëriñ bi bokk ci ñoom <clears throat> kon kon il faut que ñu wara joyal l'islam il faut que ñu war a jooyal ndax mom ndax mom bu dundé bu dundé mom l'islam yoon yépp dundu bu tumurankee bu yoon yépp ranké kon kon fi ñu toll ni fi ñu toll ni julit yépp julit yépp dañu wara a ci l'islam dañu wara a ci l'islam kem katan. ko neon. ba jéem ko delloo famu neewon newoon ko suqali bamu dund dundal di dundal loolu fi ñu fi naka jek non la meloon sax naka jek non la meloon sax lu toll ni junni at ak ñenti téeméer yu tegal ni muy gandi lecc di gandi lendam ba ci sun jamono ji kon kon war nyotal tal leneen war Ludul dundal ak yëkkati l'islam te taxaw ci temm def ci sunu lepp loolu moy sunu warteef nee na lan war a tal bala noo tal yoon yi nañ tal l'islam bu l'islam dundé yoon yëpp dundu kon nak kon nak in fok nun nun nun ñii di ñooñ sëñ Touba. nun ñii nu jooyal jooyal boole ko ci liggéey bi. ñuy liggéeyal sëriñ bi. il faut nu jooy. il waaye loolu lépp nag. waaye doomu aadama rek la. ndax suñ boroom. mooy def mooy dindi. xam na ni muy te xam na ni muy def. te loolu lépp moo lépp moo ma. kon kon. lu nu jooy jooy jooy. lu nañ far sunuy rongoñ. nañ far sunuy rongoñ. donc delloo lépp ci moom. delloo lépp ci moom. bu ñu delloo lépp ci moom. bu ñu delloo lépp ci moom. dellusiwaat ci sëriñ bi. dellusiwaat ci sëriñ bi. góorgóorlu bu bu baax. fas yéene koo sagalal lislaam. fas fas yéene koo sagalal lislaam. lu ko li ñu koy mu néew néew. li ñu koy defal lu néew néew. sagalal ko lislaam moo ci war a jiitu. sagalal ko lislaam nag. sagalal ko lislaam nag. mooy fonk lislaam li mu digle. li mu digle. ñu di ca góorgóorlu suñ kam li mu tere. li di ci góorgóorlu suñ kam kàttan. suñ ñu di ci ca daw ko. alimtisaal wala ijtinaab loolu loolu mooy mooy mooy lislaam mooy lislaam la ca dolliku la ca dolliku moo dig taalibe moo mooy makaarimul axlaaq rek mooy makaarimul axlaaq rek kon kon nanu góorgóorlu bu baax nan góorgóorlu bu baax fonk fonk lislaam ji sun kem kattan. la ca la ko dalee ca gone ga nga xam ne. jullee nga koy door war. doog a war. ak mag mi nga xam ne daanaka mënatu ko. ak ñi ci diggante bi. ak ñi ñëpp ñun ñëpp. nan góorgóorlu. gën a gën fas yéene sagalal sëriñ bi. lislaam. nañ fonk julli mooy waxtu yi juróom. gën a fonk ponk yi. gën a fonk ponk yi. suñ kem kattan. suñ buñ ko sàgganee. ko sàgganee. buñ ko caaxaane. ko caaxaane. buñ ko bu nu war la. nañ ci góorgóorlu suñ kem kattan. fonk suñ diine. fonk suñ diine. nan ko fonk. nan ko fonk. fonk sunu taalibe nag. fonk sunu taalibe nag. ndax ak taalibe bu amut. ndax ak taalibe bu amut. dana dana jafe. dana jafe. lislaam am lim bëgg. lislaam am lim bëgg. kon. kon. nañu góorgóorlu bu baax. nan góorgóorlu bu baax. ci njub. li ko dalee gone yu ndaw yu tuuti yi. waaw li ko dalee ci gone yu ndaw yu tuuti yi. ba ci mag ñi nga xam ne ñi ngi bëgg a tële. kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci nun na xool boppam. na xool boppam. teg tànkam ci siraatal mustaqim. jéem a teg tànkam ci siraatal mustaqim. loolu mooy teg tànkam ci jub rek. loolu mooy teg tànkam ci njub rek. njub nag njub na ne ñaari mbubb la. ñaari njub la. ñaari njub la doomu aadama. nga xam ne. ñaari ñaari. boo buñ nee mën nga caa jub. nga caa xàmmee ki jub. nag. jub nag. day jariñ dama ne day jariñ boppam. day jariñ boppam. ndax ñëpp dañ koy ndax ñëpp dañ koy fonke jub googee. ñëpp mën koo jariñoo. ñëpp mën koo jariñoo. njubug yàlla nag. njubug yàlla nag. mooy def ndigal bàyyi tere. mooy def ndigal bàyyi tere. lépp. li yàlla digle lépp. di a xam. ko jéem a xam. di ko jéem a def. di ko jéem a def. li tere lépp. li yàlla tere lépp. ci biir ak ci di ko jéem a xam. ñu di ko jéem a xam. di ko jéem a def. lu dul loolu. sàggante rek la sàggante lay indi. kon nan xool sunu bopp. kon nan xool sunu bopp. gone gu ndaw gi. gone gu ndaw gi. waxambaane wi. waxambaane wi. ña ca topp. ña ca topp. ba ci mag ñi. ba ci mag ñi. nañu kenn ku ne na xool boppam. kon kenn ku ne na xool boppam. na xool boppam ci ci ci njub. na xool boppam. ci njub ci njub. xool boppam ci lislaam xool boppam ci lislaam xool boppam ci makaarimul axlaaq xool boppam ci makaarimul axlaaq bala ngaa am am taalibe bala ngaa amuk taalibe balaa taalibe gee sotti bala moo rafet bala moo rafet fokk ñu jëfe makaarimul axlaaq in fokk ñu jëfandikoo makaarimul axlaaq suñ borom ci coobareem moonu nattoo moonu nattoo nattoo def ci nun ay jikko yu baax def ci nun ay jikko yu bon def ci nun jikko yu bon waaye la jëkk a jóg. mooy fas yéene gën a nasaxal jikko yu bon yi. mooy ba mën a jëfandikoo jikko yu baax yi. loolu yi rek la yomb na lool. julli jafewut. waaw góorgóorlu nag ba di ko jëf ci waxtu ba di ko jëf ci waxtu di ko boole laab. ponk yi itam. ponk yi itam. la koy fonk lépp. waaw la koy fonk lépp. mu mu mu mel ni warugar. mu lu mel ni weer wu tedd wii nu jóge mu mel lu mel ni weer wu tedd wii nu jóge ñu fonk ko nañ ko war a ñu fonk ko nañ ko war a fonke loolu yooyu loolu mooy lépp loolu lépp loolu lépp eh, sëñ bi noppi na ci sëñ bi noppi na ci fàggul nañu lépp fàggul nañu lépp bayiwul dara bayiwul dara wax na wax na bind na bind na jëf na jëf na kon kon amunu wenn lay amunu wenn lay buñ mënul dara itam buñ mënul dara itam ah, waaye lii mënu defal waaye lim nu defal nan ko sagal nan ko sagalal sagal nan ko sagalal fonk lislam nan ko sagalal defar sunuy jëm nan ko sagalal nan ko defal sunuy jëm defal sunuy jëf bu doon mënut dara itam war nan ko sant sant sagal gogi mu sagal lislam mom lañ koy mën sante mom lañ koy mën sante non rek la demee non rek la demee nan gor lu bax nan gor gor lu bax tënk bàngo nan góorgóorlu bu baax waaw ah, ñoo ngi sonn suñ bopp nanuy soññ suñ bopp di soññ sunuy bokk di soññ sunuy bokk sunuy bokk jullit sunu bokki taalibe sunu njaboot nañ leen di soññ ginnaaw soññee suñu bopp di leen soññ te nekk ca lañ leen di soññee te nekk ca lañ leen di soññee suñu kem kàttan suñu nan ko def nan ko def buñ ko defee buñ ko defee dañuy mucc dañuy mucc adduna bari nay gàllankoor lool. ak ni mu xewee ci jam li làmm yi di wax. ay mu di ay jafe-jafe. jafe yi du dara. jafe dara. du ci am. jafe-jafe ju am mën a am. waaw jafe-jafe ju bu mën a am. noo ko teg suñu bopp. noo ko ku nekk ci la nga war a ne. jafe-jafe du am. jafe-jafe du am. njàmbat du am. njàmbat du am. waaye njàmbat li. njàmbat li. nekkuñu ci leen war a nekk. fekk nekkuñ ci leen war a ne. njàmbat yi duñ ci jóg. te duñu jëriñ dara. te xarab suñu borom dong la ñuy andil. kon nan jéem a nekk ci li ñu war a nekk. nan jéem a kon nan jéem a nekk ci li ñu war a nekk. ci li ñuy mucc ci dundug adduna gii. ci li ñuy mucc ci dundug adduna gii. teq-teq yi ci naam ay am ak gàllankoor yi. ci teq-teq yi ci am ak gàllankoor yi. ak jafe-jafe yi ni ñu koy waxee. ak jafe-jafe yi. ak yi tax jàmbat yi bari. ak yi tax jàmbat yi bari. dara dara du nu ci musal. lu dul fonk fonk fonk fonk fonk suñu lu dul fonk suñu diine. góorgóorlu ci njub. góorgóorlu ci njub. góorgóorlu ci makaarimul axlaaq. góorgóorlu ci makaarimul axlaaq. loolu lépp nag. nan koy def te yàlla tax. koy def te yàlla tax. mooy tax mu am njëriñ. mooy tax mu am njëriñ. buñ ko def ngir dara nañ ko def te yàlla tax loolay tax moo am njëriñ nan góorgóorlu bu baax xoolaat suñu bopp xool fi jamono ji toll islaam noonu mu ko waxee fanweer yu tegal rek wallaay ah, ak benn benn yu baax yi. ñoo ci ñoom ñoom la ci. ñoom rek ci rëcc. ci rëcc. wallaahi wallaahi ci tumuranke islam googee yenn te gars yu baax yi rek. tumuranke googee. Le le lepp jii la ëpp fofé l'islam judo. foofee lislaam juddoo xew-xew yang fay am xew-xew yang fay am rayante rayante bo xam ne teguñ ko fenn ba ci bisub tay bi ñanga ca ñanga ca te teguñ ko fenn te teguñ ko fenn yàqu rek leen ko teg eh, eh, yàqu rek ya-, yàqu rek leen ko tek mo leen ko tek nañ gor lu baña yaqku nañ góorgóorlu bañ a yàqu nañ góorgóorlu ci bëgg defar dara duñu ko may dara duñu ko may lu dul ci ndigal rek dellu ci ndigal rek dellu ci dellu ci li yàlla bëgg. dellu ci li yonent bi bëgg. dellu ci li yonent bi loolu lépp nag. loolu lépp nag. ngi ak sëriñ bi. mi ngi ak noppal nañu ci. so xool sëriñ bi rek. jéem a jàngaat sëriñ nañ jéem a jàngaat sëriñ bi. di ko jéem a dund. buñ jàngee buñ xamee sëriñ bi. buñ dund sëriñ bi. dund sëriñ bi. malaayika yi la ñuy rawanteel. la ñuy la. alhamdulilah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë waaw ah, nee na noo ngi sant nag noo ngi sant bu baax nag di sant sëriñ bi nam ko waxe woon ci pàggute bii nga xam ne fàggu noonu ko misaal mi yëpp misaal mi lépp mën naa dellu ci mën nañ koo gisee mën nañ koo gisee ci lépp lépp ci Cheikh Mouhamadou Fadil ci Cheikh Mouhamadou Fadil mii ibnu Cheikh Abdoul Khadir Fadil Mële. ak Cheikh Mouhamadul Fadil Mële. Eh, di ibnu Cheikh El Mboussoubi. ñoom ñaar ñooñu. ñoom ñaar ñooñu. exemple lañu. exemple lañu. ci lépp. ci lépp ci lépp diine. ci lépp sëriñ bi ci lañu. teyit ñu ngi ci ànd ak seen i moroom yoo xam ne. teyit ñu ngi ci ànd ak seen i xam ne. ñu ngi ci seen wet. ñoo xam ne. ñoo xam ne. mën nañ leen a wóotu. mën nañ ñoo xam ne nag. ànd koog ñoo xam ne nag. ñoo diine ji. ilimaan a ngi nii. ilimaan ngi nii. ilimaan a ngi nii. ilimaan a ngi nii. ñi ànd ñun si nu ñi ànd ak moom nuwaab ya ñi nga xam ne fu ñu mën a taxaw ñu ngi taxaw mën na. loolu nag sama bokki taalibe yi lay lay lay soññ. nee na loolu nag bokki taalibe mi lay soññ. loolu kat sëriñ bi moom jàpp na jàpp na mbiram. dëgg la nee na bi nag jàpp na la mbiram. li mu bëggoon am na ko. kon ku ci bëgg bokk. kon ku ci bëgg a bokk. da xool sa bopp. da ngay xool sa bopp. jëmale sa lépp. jóg jóg def ko def muy sa yitte. ko muy sa yitte. waaye nit ki bu. looy dem ba nga xam ne adduna rek mooy sa yitte sa bopp rek kay sa yitte. te mënuloo sa bopp dara. adduna mënuloo dara. te taloo lu dul adduna. taloo yàlla taloo alaxara waaw. gëm boo gëm dëgg. nee na dafay dafay wax ne gëm dëgg. bu amee il faut que nga soppiwu doxin noonu rek la jërëgéen jëf Mbàkke Balla jërëjëf tàll waaye nekk na tàllal na ñëpp tàllal fu waay nekk na tàllal yaa